ndeysaan yalla mën na la suturaal nag àdduna ngay dox ba sa liggéeyoon day and ak yow nga am chauffeur man kuma ma ci aduna da am chauffeur du ko gëm <laughs> ku eh, eh, xolal li nga dawal damay dakh <laughs> ba pare da bëgg di daw di xol ko sura fix toi tawal <laughs> gaaw aduna